Eh, jàngal la njariñ ni ngay def ba jariñu it mu jàngal la ko su ëllëgatee mu ne la soo noppee fee ngay dem muy aljanna wàccoo nag yow te loolu la nu suñ tubaa defal suñ tubaa dafa wàccoog ñun ci wet yëpp fi ne aatu rahmatullahi alayhi eh, ñun ñoo koy yërëm waaye fi mu nekk nii moom wa yastabsiruna billatin lam yaxlaaqoo bihim boobu nga wax léegi moom mi ngi wax ñii ci ginnaaw naan ñii buñ xamoon ci luñ ne ñun waaye góorgóorlu leen ci li ngeen ne ndax yéen ñun bi ñu ñëwee gis nañ li ñu yàlla digoon ne def na defal nañu ko ndax aljanna moom te yàlla ñim ko digg mooy taxoon kon nag su la dara tëyee ànd la ko ko am Sëñ Tuubaa dafa am ak ak ak dafa am worma ci yàlla xam nga nit ñi dañuy xëntewoo gëm yàlla ak ragal yàlla waaye moom dafa am worma ci sunu borom gis nga ki nga wormaal desilutoo ko dara Sëñ Tuubaa dafa désilatul yàlla dara dara dara waaye moom suñu borom tamit nag daa jël Sëñ Tuubaa def ko noo xam ne noo noo foogee Sëñ Tuubaa digganteem ak boromam rek raw na ko noo ko foogee rek xëy na mantixiyan li muy bind ñu di ko gis rek lañ ci mën a xalaat nii di di di di tegale naan boo demee lii la maanaam waaye li wax loo nit ki maanaam li ko li ko ñulug ba mu wax loolu mooy li am solo soo gisee lu mel nii tey am taalibe yi ñoom duñ ci am benn jafe-jafe seen diggante ak ki nga xam ne moo nelaw su nit faatoo ñu ne diw noppalu na euh, dañ fa fekk lu bari fekk fi lu ne te aatu am tàgg la am tàgg la daa maanaam picc la mu fekk am tàgg mu nekk ca biir tàgg ma te wàcc ko amuti laaf waaye ci biir tàgg mi ci la léppee gis nga fekk yaa ngi ci biir tàgg mi dara du la dal Euh, loolu la ko suñu borom defal loolu da ko aar ni mu nekkee woon intellectuel tey su nekkoon ci àdduna bi ca jamono yu ndëkk njëkk ya kon boo ko séenee xam nga looy njëkk xàmmee ci moom kos façon costume waaye moom dafa jël costume Serigne Touba def ko muy costume muy roy doomi Serigne Abdou Lahad doomi Serigne Touba jooju muy Serigne Abdou Lahad ñu jël seeni màndarga parce que lan mooy weextan wi nekkoon ci euh, étudiant koo xam ne dafay jàng francais li ciy nekk léegi loolu yëpp ñoom dañ koo sànni fale daal di jël lan mooy cafka gi nekk ci murit waaw bi bàyyee wextan wi nekk ci euh, jàngu tubaab mooy maanaam aada ji ci nekk dañu jël cafka ngay yoonu murit murit soo gisee donga bi nekk ci digg àll ba ànd ak barigo yee di rooti naaj tàng jër nga romb ko yor su oto kilim ko Eh, daan ne waaye mais kii moom xanaa dafa feebar gis nga bu déggoon sa wax ji dalay yërëm yow ndax ab kursu la rek àdduna eh, làmbi golo la it nag ku mënta tëb bay boo nga toog xam ne gañe nañ la waaye ku bokk ci kër Sëñ Tuubaa doo ñàkki tànk mukk ci àdduna noonu la noonu la noonu la àdduna àdduna def moo tax diirub li mu dox bari na de gàttu fan tamit liggéey na tamit juróom-ñett juróom-ñaar fukki at yu manqué ñaar mag la ci mag ñëpp la bokk ci magi réew mi la bokk juróom-ñaar fukki at ñaar bu doon tubaab tamit euh, dem nga retraite ndax juróom-benn fukki at ak nangam foo ko amee daanaka retraité nga waaye sëñ tubaa nag moom moo amul retraite sëñ tubaa moo amul ancien ministre wala euh, ancien euh, fonctionnaire moom bu la xasee fonctionnaire toujours à vie lay nekk. te bu demee fee mu dëkk ndax daf ne woon di aqdimu ilaa duxulil janna kooku projet la. Hmm. ilaa duxulil janna dayo la ba at janna kon aljana sax xëy na am na fa système boo xam ne Sëñ Tuubaa dana ko fa def xëy na ñun ñoo ko xamul waaye man damay wax ne aqdimu illaa duxul jana daaril xaraari wal munaa wal minna kooku euh, ay mbir nga yoo xam ne yii daal ñun xamuñ ko foofu rek lañ mën a yem loo kooku nag ci mission boobu la nekkoon kon ba tey jii musta wàcc ndigalu ab xalif bés bu set mi ngi ci tànku ab xalif la dali sëñ Abdou Lahad Mbacké xaadir ba ak suñu joon tey ji sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa moom seen xarit la ñëpp xam nañ ko kon yàlla na yàlla jàppale liñ tabax lu am solo la parce que indi na euh, sëñ Tuubaa dafa def benn affaire mooy boo ko bëggee tere daal da koy indi li ñu tuddee badil dafa dégg jamono gis nga galanu xasida sëñ Tuubaa moo dàq instrument musical yi gën a for ci àdduna moo ko dàq léegi nag ñoom nag ñu ñu ñëw nag daal di dugg nag ci biir euh, orchestre bi di ci tëgg di ci génne kaset yoo xam ne kenn mësu ko gis ñoom dañu amoon benn benn kaset bu nu jàngoon boo tey tey sur asir ancien tey sur asir ba booba jumtukaay yu bari yu bareegul booba ñi ngi baat yoo xam ne kenn mësu ko dégg boobu maa ngi jàngale arab fuuta dama ko daan teg par tàkkusaan di teg ba pare boole ko di jàng xasida booba maa ngi sufiyankewu mais gis nga boobu sëñ bi fu munta yóbbu nit amut fu munta yóbbu nit amut ci àdduna maa ngi ko daan laaj gaa yeen ni naan leen waa seen seen seen seen seen kii seen façon boobu ngeen seen daaj boobu ngeen ko daajoon ndax boobu amati na wala déet xëy na buñ ko déggee dinañ kii beneen bi ci des mooy bu ma neex lool dafa am benn koor euh, ñuy jàngale benn xasida sañ tubaab bi nga xam ne dafa ci ndokkeel ñi nga xam ne dañoo wooroon léegi nag ma daan ne ah xasida bi de dañ ko waroon jàng nag xasida boo xam ne bii kii la euh, lañ tuddee li may man man boog la ma ko tuddee woon jamono booba mooy euh, ndiwinal ndiwinal waaw ndax nit ñi bu ñu wooree ba ngoon bu ñu waree laa bëgg a wax dikk am na yu ñu joxante ay teraanga léegi nag xasida gi ci anam gu la dikk am na daf ko def jox ko mag ñi nga xam ne ñoo fa toogal bi xasida gi ñëw mu jox leen ko ñu jàng ko at moomu at moomu tombeet émission yi ma doon def ma mujjantal ci xasida boobu mais ñoom biñ ko jàngee man xasida gi dafa mel ni dama ko mus a dégg musuma koo xam bi ko dégg ñu daa mel ni man li ma xamoon di ko jàng kon ko xam njàngum xasida nu mel Eh, sëñ Tuba mu jëli eh, bi buuna demee te kero ba buuna demee lan la sëñ Tuba wax daf ne mm, buuna dem mbalaan mii rasulaay ma ko jox neen ma naa ko sànge ndax mbindam loxo mi ma daan tagg rasulaay mu daan ko jàng buna eh, njaarim la nekkoon ab jàngkatub xasida la woon boo xam ne daan jàngal sëñ Tuba yàlla dafa dogal mu dem bi mu demee sëñ bi daal daal di wut lu mbokkam Fall la sant sëñ Mahamadan Fall mi daan jàngal sëriñ bi yaakaar naa moom dégg nga daf leen dégg na Salim bi